alhamdulillahi may way Cheikhu Omar alfuutiyu taale borom degem bere alhamdulillahi may way Cheikhu Omar alfuutiyu taale borom dege mbere alhamdulillahi may way seexu omar alfuutiyu taale borom dege mbere mooy borom dege mbere fuutiyoy dege mbere alhamdulillahi may way seexu omar alfuutiyu taale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 julɗen annabi sallllahu alayhi wa amin salmina dendagal julɓe wonɓe e ɗo e sénégal e adduna o e dendagal biɓɓe adama taw ko allah adi wiide omo teddini ɓi adama wala qad karramna bani adama nden noon amin teddinina ɓiɓɓe adama e fof e salminagu e kisal e jaam caggal ɗum noon galle cheikh oumaru fouti radiallahu taala anhu ardinna kadi koye jinnaɗo meɗen halifa meɗen ceerno mouhamadoul bachir muntaga ɗaha amin calminamo amin juuromo ɓesgu ceerno habib muntaga ɗaha ardinde kadi halifa galle o halifa ceerno habib muntaga ɗaha ceerno muntaga habibu muntaga ɗaha e salminagu e dendagal ɓesgu ngu fof e dendagal almuɓɓe e dendagal julɓe ɓe fof omo salmina on omo juuro on omo do on tengti noon porte parole galle ceerno habibu muntaga ɗaha ceerno mohtar cheikh oumar foutiyou e yamiroore kadi ɓesngu cheikh oumar foutiw amin calmina amin juuro amin mbiya kadi e adduna o hannde ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiino kala ko wiino hankadin en jii ɗum yettiima koye ahri jaman gonɗen amin kaala noon e ko heewi e adduna o ko heewi hakkunde e leydi maali ko leydi maali ko leydi woni ko leydi cheikhna oumarul fouti radiallahu taala anhu taw ko cheikh oumaru fouti radiallahu taala anhu ko waɗi e yamirore nelaɗo sallllahu alayhi woni jihad o ko ɓuuri hewde ko mali o waɗi o ñiibi toon konngol la ilaha illallah mouhammadu rasulullah sallllahu alayhi wa o bammi konngol allah e diina l'islam o tuubni noon heefereeɓe o bonni kadi silama o bonni kadi ko heewi kadi ko tawa koye bamarankoɓe koɓe joguino ko ɓe ndewata allah o naati ɗon kanko cheikhna oumarul fuutiyu o felli jihad o lelni konngol la ilaha illallah haa ko heewi woni juulɓe toon sallinoɓe allah ɓe ha ɓen jaaɓi allah nden noon ɓesgu cheikh oumaru fouti nana mali ko cheikh oumar radiallahu taala anhu allah rokkinomo kala to yeehi allah waɗan ɓesgu makko ena toon ɗo ha nigéria ɗo ha soudan ɗo ha côte d'ivoire ha cameron niger ha burkina ha mali ha guine konakiri ha guine bisa o ha sénégal ɗo gambi ha maritani ɗum fof ɓesgu cheikh oumar fouti ene ɗon so tawi noon ɗum heewi hannde mali hakkunde noon enen fof jiidi yummo jiidi baaba hono no allah wiiri ni innama almuminuna ihwatun fa aslihu bayna ahawaykum wattaqu llaha laallakum turhamuna ko ɗum allah wi oɗum kadi cheikh oumar fouti radiallahu taala anhu waɗi ha o naate e mali tawa ko woni mali ko ɓesgu wonɓe toon ɓe ko ɗum woni sénégal ɗo ko woni sénégal ɗo ko ɗum woni mali saabu cheikh oumar taniraɓe makko nana mali ha heewi taniraɓe makko nana ɗo e sénégal ɗum noon sédéya o soɓe ɓammi ɓe mbi aɓe mbaɗa embargo mali ene wayne ko juulɓe ɓe e ɓiɓɓe adama ɓe fof ɓe mbaɗi ɗum ɗum ko ɓuri moƴƴude ko état sédéwa kamɓe jogiiɓe e laamɓe ɓe gila président mon excellence monsieur makky sall yo yewtondire e cda o ko allah wi ko enen fof ken musidɓe enen fof jiidi yummo jiidi baaba jarani hono noon ɗum ene waɗe e mali foti ko noɗɗude cda o fof ɓe jawta ɓe ƴeewa solution ɓe kawra e konngol sabu ko mali ko ɓuri heewde ɗum noon ko ko haɓde e terroriste en walla jihadiste wonɓe ɗon e nord ɗum ko cda e fotti ko yewtude jeewa kadi armé ko wayno ujunere soldateɓe ɓe dokka mali ɗum solution ha ɓe mbawa haɓde kadi e terroriste wonɓe ɗon ɓe ɗum soɓe mbaɗi ɗum cda e no wawi ɗum wadde ɓe jewta ɗum ha ɗum wona maslaha hakkude e, e sous région ji ɗi ko ɗum de woni feere sabu ko cheikh oumaru fouti ko wino ko ɗum tan o wi aha jihad o ko ɗo allah haatni nde o naatata dege mbere kanko cheikhna oumaru fouti radiallahu taala anhu o wi noon ko ɗo woni rendez-vous am ɗo kawraw mi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo naatan mi hayre mi tawayomo madinatul munawwar kanko cheikh oumaru fouti haali ɗum o wi aha tubakooɓe nana ngara caggalam soɓe ngari onon julɓe ɓe maslodiri e maɓɓe son masnodiri e maɓɓe ɓe mbawa ittita misqara zarratin e fiɓde moon e gëmde allah e fiɓno moɗon yidde allah masala o ko cheikh oumar wi o wi onon noon gandon noon tubakoɓe ko allah rokki ɓe adduna watta jaɓen kadi tubakoɓe gara kadi ene serna en tawa enen jiidi baaba radiallahu taala anu cheikh oumar nde o waɗi ɗe o renndini ko bale ɓe fof a afrique occidentale fof o renndini pour yimɓe ɓe yoɓe gonno gootum yoɓe liggo yoɓe ndewa allah yoɗumen nde allah wawa jippade e meɗen ɗum ɗon ko wi ko allah wi ko tinnoɗen hen tinnoɗen hen allah kadi wi watta ceeren kadi wahtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu awa enen fof julɓe ko mali ko julɓe goni toon a ko taniraɓe goni toon awi jeewi nder gouvernement mali hannde koye koye taniraɓe wonɓe toon ɓe tawa ko sénégal naaɓe taniraɓe jeehi toon jiɓɓini ɓesgu ngu premier ministre des affaires étrangére mali wiyete ko abdoulaye diop te diop diop ɓe ko sénégal ɗum gandan kon ko mali e sénégal ko gotum ha ministre des affaires étrangére mali biyeteɗo abdoullahi diob a hay jaay jayɓe na toon a touré touré naɓe kala jettoɗe e nder sénégal ɗum ene mali ko sénégal naaɓe ɓe gummi ɗo jehi toon haa ɗum noon ɓesgu ngu ɗon haa ɓe jogi hannde ganndal haa aɓe laamoo toon ɗum nganndo fof ko gootum nde amin nodda enen africain en enen baleɓe ko cheikh oumar noddino ko wiyo fof won gotum kanko cheikh oumar ko ɗum wonno eh, eh, eh, mission makko ha o rendini fof afrique haɓe rendiniɓe enen fof gonen gotum kuccen e allah e nelaɗo mum mbawɗen naftorade ko ngaalu ko joguiɗen ko ɗum noon yo allah wallu en enen afrique yo allah wallu en yo allah duncana en kala musibaji kala bala ɗum ganden noon sédéa o yoɓe dutto ɓe jewtidira e mali naaɓe ɓe mballa ɓe haa ɓe mbawa iwde e tampere gonɗo ɗon o ɗum noon yo allah wallu en ko ɗum woni noon konngol e besgo cheikh oumar e konngol e galle ceerno habib mountaga ɗaha e konngol noon halifa o ceerno muntaga habibu muntaga ɗaha kono bo ko ɗum wonno haala ka allah jarama on jarama yo allah wallu en yo allah reen en yo allah waɗa en jaam yo allah deeƴnu yo fitna gonde adduna o yo allah deeƴnen en kala musibaji e bala allah duncanana en e barka nulaada allah sallllahu alayhi wa sallam tunnaɗen e koye meɗen anen baleɓe africaine saabu ngaalu koye meɗen woni tuubakoɓe ɓe gummoto leyɗele mabɓe ɓe gara ɓe naftoro e jawdi meɗen e ngaalu meɗen ɗum ganden enen tinnoɗen jaggodiren enen afrique en eh, mbaɗen gootum jawɗi ndi gonɗo e lesɗi meɗen ko enen jeeyi ɗum ɗo noon tinnoɗen gollen ɗum ɓesgu meɗen taniraɓe meɗen janggo ɓe gara ɓe naftoro allahuma salli ala seydina mouhammadin wa allah jarama on jarama ci làkku insaan seexu diggu na leen nooy borom dege mbere téeméer fukk ak ñett ci làkku insaan Seexu diggu na leenooy borom degembere alhamdulillahi may way Seexu Omar alfuutiyu taale borom degembere téeméer fukk ak ñett ci laq insaan seexu déggu na leenooy borom dégem bere alhamdulillahi may wayi seexu omar alfuuti yu taale borom dégem bere yaa saaxibal waxti yaa mansuuru yaa wazaru yaa seexana yaa waliyallaahi yaa umaroy seydi taal yaa saaxibal waxti yaa mansuur yaa wasaro yaa seexana yaa waliyallahi yaa umaroy taal. acuudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallim assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw ba ñu sante yàlla juli si yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di jiital nuyoo sunu waajur sunu xalifa xalifa cheikh umarul fuutiyu Ceerno Bachiru Muntaga Daha di ko nuyu ziyaara di ziyaara njabootam ku ko nekkal fii Thiès di xalifa Ceerno Habib Muntaga Daha Ceerno Muntaga Habib Muntaga Daha di ko ziyaara di jël kàddu gi ci ndigalam en tant que porte-parole de la famille à Thiès kër Thierno Habibou Mountaga Daha si ndigalu nag waa kër Cheikh Umar Fuuti radiallahu taala anhu si seen kàddu di wax lu xew si jamono bi tey surtout nag Mali lu xew Mali metti na lool te rafatul si diggante ñun africain yi te nit ku ñuul yàlla dafa jox nit ku ñuul cër yàlla dafa jox nit ku ñuul cër jox ko gëm boppam bëgg boppam muy doon ku ñuul ñuul boobu nag moom mooy jom <laughs> jom moo tax Cheikh Umaru Fuuti radiyallahu taala anhu ba mu ñëwee mi yàlla def ko yabal si lan si der wu ñuul yenent bi sallallahu alayhi wa sallam garanti ne ko seexu mar dama la yabal nga baleel ma lu desoon la nga dellu si waat sama loxo kenn du gis foo tëdd wala fuñ la suul wala fii sa bàmmeel la wala fi nga tële loolu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam garanti na ko Seex Umar te Seex Umar muy nit ku ñuul mu yëkkati der wu ñuul ba Égypte soo gisee tey al Azhar université bu gën a mag si université yi ñu jox foofu cër nit ku ñuul Cheikh Umarul Fuuti moo jaayante woon ak ñoom won leen xam-xam ba ñu nangu moo tax ñu jox cër nit ku ñuul kon nit ku ñuul am na cër si yàlla soo gisee màkkatal mu karram ñu jox nit ku ñuul cër foofu Cheikh Umar Fuuti moo fa dem jaayante ak ñoom xam-xam ba ñu nangu kon waaw waaw wallaahi ñun nit ku ñuul am nañu cër si yàlla kon boog nañu delluwaat si yàlla te yàlla lu mu wax innama almuminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum wattaqullaha laallakum turhamuuna nañu rafetal ñun ñëpp ay mbokk lañu ñun ñu gëm yàlla dafa na ñun ñu gëm innamal muminuuna ixwatun yéen ñu gëm ay mbokk ngeen te Cheikh ba mu ñëwee fu mu gën xare yëkkati fa kàddu yàlla dindi fa xërëm ñuy jaamu yàlla mooy Mali liggéeyam lu gën a bëri ci jihaad bi Mali la ko def ba léegi ay njabootam ñoo ngi fa moom Cheikhana Umarul Fuuti radiyallahu taala anhu comme am njabootam yu ñu nekkee madinatul munawar makkatal mukarram ba Suudaan ba Égypte ba Cameroun ba Nigéria ba Mali ba Burkina ba Niger ay njabootam ñoo ngi fa ba Guinée Bissau ay njabootam ñoo ngi fa ba Guinée Conakry ay njabootu Cheikh Omar ñoo ngi fa ba fii Sénégal ay njabootam ñoo ngi fi boo demee Gambie ay njabootam ñoo ngi fa surtout Cheikh Omarul fuuti boo demee Mauritanie sëtam yaa ngi fa ñoo ñu gën a bëri nag ñoo jóge Mali ñun suñu maam yëpp ñoo ngi juddoo Mali <laughs> mais Cheikh Oumar Fouti radiyallahu taala anhu mi ngi juddoo Halwaar Sénégal te sénégalais la pur africain mais njabootam yu gën a bëre ñoo ngi juddoo Mali comme Muntaga Daha radiyallahu taala anhu mii ñu denc Louga a ah, muy waajuru xalifa bi Thierno Bachir muy sunu maam Muntaga Daha Daha di waajuram mi ngi lambeedu si Mali foofu la tëdd maam Mountaga Daha foofu la ganee àdduna Mali ah léegi nag mu ñëw dëkk ci senegaal am fi ay njaboot sunu maam Thierno Seydou Nourou radiyallahu taala anhu mi nekk Dakar tey waaw Mali la ganee àdduna fu ñuy wax Karta boor Nioro di Sahel fa la ganee àdduna ñëw Sénégal waaw kon ñun ñëpp sunu maam yi ñoo ngi ganee àdduna Mali moo tax nag lu xew Mali nag fokk ñu wax si ñu seet solution waa CEDEAO président yi na ngeen toogaat ngeen waxtaan monsieur le président Macky Sall son excellence waxtaan ak ak CEDEAO si décision bii ñu jël nañu delluwaat ginnaaw ñu toog ñu waxtaan ñu régler situation Mali Mali dafa yàgg situation bu au nord foofu terroriste yaa ngi fa jihadiste yaa ngi fa nee nañu dañuy dal ci kaw armée Mali mais lii moo tax nag armée Mali ñoom tamit ñu def lii ñu def la mais bu ñu toogee ñu waxtaan solution dina génn bu dee loolu la tamit bu dee ñoom dañoo soxlee armée mais CEDEAO nañu dajale même bu dee junne soldat ñu yóbbu ko Mali ñu jàppale leen ba ñu mun a taxawu ba jihadis yi génn foofu ñu toog nag ñu waxtaan nu ñu dellewaatee nguur gi civil bi mais loo gis rek wax waxtaan la loo gis tamit du forcé du doole buñ ko defee dañ koy rëccu ji lu ñu tëj nag frontière bi te ñu ñëpp ñu ay ay jullit ay doomu aadama te yàlla wax ne ñun ñëpp ay mbokk lañu nañu rafetal suñu nekkin yi te su boobaa ñu ragal yàlla waaw yàlla yërëm ñu <laughs> loolu la suñu boroom wax kon boog yéen ñi yàlla dénk nguur gi te yàlla dafa dindi si nguuram mis misqaala zaratin sànni ko si nguuru àdduna bi kon boog nañu delluwaat ginnaaw waxtaan sénégalais yi nañu waxtaan maliyen yi nañu waxtaan ñu nekk benn bu ñu nag ñeneen ñëw di ñu divise walla di ñu tàqali te yàlla lu mu wax si si waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu waaw mooy si buumu yàlla bi muy lislaam ak al alquranul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ñu bañ a nag tàqalikoo te bu ñu tàqalikoo noon yi am seen sago te Cheikh Omar radiallahu taala am na lu mu wax doom nañ ko bàyyi xel defe ne jihaad bi fii la yem ci dege mbere fii la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jox jox ma rendez-vous ci xeer gi laay dugg fekk ji ko madinatul war yenent bi ne yow Cheikh Omar si man nga jóge si sama loxo nga jóge dama la yabal nga baleel ma lu lu desoon la nga dellu si waat si man kenn du gis fu ñu la suul yow Cheikh Oumar Foutiyou kenn du gis fu ñu la denc te kenn du gis foo tëddee ba tële Cheikh mar bind na ko kon kooku kay wax lii mu ne leen aha tubaab yaa ngi ñëw sama ginnaaw moom Cheikh Oumar Foutiyou radiyallahu taala anhu waxoon na ko mu ne tubaab yaa ngi ñëw sama ginnaaw bu ñu ñëwee na ngeen maslaha ak ñoom yàlla moo leen jox àdduna du ñu mën a dind nag misqaala zaratin seen ngëm-ngëmu yàlla waaw Cheikh Omar radiallahu taala anhu wax na ko kon boog ñun africains yi alal bii ñu am muy pétrole bi muy gaz bi muy jamaa bi muy fer bi ah ba phosphate yooyu yëpp mun nañ si dund ñun Afrique moo tax tubaab yi nag bu ñu ñëwee bugg ñoo tàqali tàqali ko nañ ko bañ nañu waxtaan ak ñoom nag maslaha ak ñoom parce que yàlla moo leen jox àdduna mais lu ñu gëm li lu ñu am li nañ ko téye mooy lan fulla ak fayda kon yàlla nañu yàlla taxawu te yàlla na yàlla jàppale ñu te yàlla tàppe xol yi nekk benn état CEDEAO yi nañu toogaat ñu waxtaan bu ñu waxtaanee di ñu gis solution bi muy jàmm kon yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla defal ñu tawféex yàlla defal ñu mbaax yàlla seddal yépp dalal lépp si barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu delluwaat ragal yàlla jaamu yàlla topp yàlla xam ne àdduna bi jeex na ba pare signes yi ñuy gis tey réeroo yi reyante yi ah bañante yi ba léegi loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko mu ne axri jamaan mi ngi ñëw bu ngeen gisee yii rek xam ngeen ni signe la kon léegi teg nañ ci suñu bët bañante yi reyante yi ngir alal jàngoro yi feebar yi musiba yi balaa yi taw yi dugg biir dëkk yi di ravager safara bi di lakk ba dugg biir dëkk ba dëkk yi di yàq loolu lépp yonent bi sallallahu alayhi waxoon na ko siiñ la kon lan moo ñu siy musal nañu delluwaat si yàlla tuub jéggalu ñaan yàlla yàlla jéggal ñu yërëm ñu defal ñu tawféex àdduna ak alaaxira ak bennoo ak déggoo ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim bi rasulillahi narjo jawaaraho yonti yàlla muhammad bi hubbi rasulillahi narjo jawaaraho sayyidina muhammad بحب رسول الله نرجو جواره إن حب النبي على الدرعم وعظام ودم دون رياء سيدنا محمد هاج السوق لحب خير البرايا مزحر الفكر من الكرماء سيدنا محمد حب طه نبي فردي ونفلي وسرابي ومنيتي وإضائي سيدنا محمد هاج سوقي لحب غير البرايا مزهر الفكر من الكرماء سيدنا محمد حب الطاعة للمذنبين نجاة وأمان من حول يوم اللقاء إن حب نبي قالت لحمي وإذا أمي ودم دون رياي يا محمد يا محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بمحمد الأمين صل يا أعلى الكمال النبي بائل الجمال من عوى كل المعالي قدره ما زال ممد لمن قدره عالي مفاقم دائما سامي مكرم jaacu woo jaacun muazzam yonen wajuwoo fa xalqilaal muhammadu lamin ya muhammad ya habibi yonen ya muhammad kunte bibi nabi